moom nuyu naa. waaw sant naa. ci loolu. sant yàlla bu wér waay. mel ni fi mu toll nii da ngaa xaw a sawar. non na nga xam rek. <laughs> naa yéen naa kay. bés bi lan la laaj. waaw daal ñaan yàlla ma ñu ndam rek. ñaan yàlla may ma ndam quoi. comment dina am xeex. lu mu laaj da nga def. lu mu laaj da nga def incha allah rabbi. retour de bébé Diouldé la ñu wax de. waaw loolu dara. retour de Brise de Mer. loolu dara. ñoo gën a soxal ndam fuuf. billaahi. kon ba ndam rek. waaw pare naa daal. pare naa bu baax. xam nga jaamu lu bari. loxo bu ne daal di jaay moom la gerte bi tubaab boo def dégg Fallou Ndiaye wala Aliou Fall waaw si. waaw mais demee nii ngeen. sant yàlla bu baax a baax. li nga tuus neex na. waaw alhamdulilah dañ ko rafetlu ak sunu temperance. retour de. tey bés lu mu laaj. waa tey ak dal rek déglu ko si waaw lu ñu conseillé ñu bëri loolu. Uh-huh. xam nga booy. waaw bu baax waaw. xam nga ko bu baax. ndaanaan la ndaanaan la. Uh-huh. tey bés bi xeex la laaj wala bëre. waaw dañuy ñaan yàlla may ñu ndam rek bu rek dóor la ñu wax lépp lu mu laaj rek dinañ ko def. kon baax na ci kan. jaajëf jaajëf. Brise de Mer numéro 2 noonu pare na loolu moo nekk grand combat bi moo Bébé Diouldé ñooy daje. Brise de Mer di lagg xool ko takkul dara. instant bi loo yëg. ndam rek incha allah. Bébé noonu. am na benn bouteille bi muy sottee ko <laughs> bëre wu la. billaahi buy bëre. Bébé Diouldé ngi noonu. combat ak Dame ko su mu encaissé sa coup foo ko neex awale ko barka ko tax ku ko di dem ci digg géew bi Bébé Diouldé pare mbokk yi ñaari yaa ngi ci digg géew bi arbi baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Bébé Diouldé moo féete à gauche Brise de Mer moo féete à droite arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi laaj ay juge am na ki nga xamante ne mooy Brise de Mer numéro 2 na Bébé Diouldé mbokk yi les vingt heures une minute le 20 mars Bébé Diouldé Brise de Mer saaku yi fekkiwul kenn arbitre sëb la ñu demee ba ci saaku yi taxaw di lewaatoo

Bébé cokkaas na léegi Bébé Diouldé mbabaat na léegi waaye Brise de Mer ngi na tekk di ko déglu c'est lamb le retour de Bébé Diouldé il va passer ou bien il va rester loolu kenn xamagu ci dara loolu ci kanam lay leer le vainqueur de Tmax Brise de Mer numéro 2 Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé dafa bëgg a dem wala dafa bëgg a xeex ak moom waaye Brise de Mer a ngi mel ni ko ko ragal te loolu du dëgg ci moom Brise de Mer Bébé Diouldé Bébé Diouldé a ngi mépp waaye Brise a ngi ne tekk du ko xool arbitre bàyyi ko mu bëre loolu lamb la stratégie lay dawal

Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer am na benn avertissement Brise de Mer numéro 2 Bébé Diouldé le retour de Bébé Diouldé Brise de Mer door na ko wala boobu Bébé Diouldé door na léegi ku dafa bëgg a xeex ak moom door na ko ku droite Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer dafa bëgg a xeex ak moom waa Bébé Diouldé dafa Brise Brise de Mer Bébé Diouldé Habib waat na leen ci digg géew bi da ko jox avertissement wala lu muy def Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé Bébé Diouldé moode lale baaxu góor la

prise de main Bébé Diouldé prise de main wàcc na Bébé Diouldé dàqaat na ko ñoo ngi xeex génn na Bébé Diouldé taxa prise de main taxawal prise dafa mel ni stratégie lay bëree prise de main am na trois avertissement arbitre sifflé waat na Brise de Mer Bébé Diouldé jël na tànk ba Brise de Mer jël na tànk ba nu mu cay def jël na tànk ba da koy daan da koy daan da koy daan da koy daan woo daan ko ko daan na ko Brise de Mer daan na ko indi na stratégie la andi stratégie la andi daan na ko Brise de Mer daan na Bébé Diouldé kontaan naa. loo bëree. kontaan naa. da nga gis nga daaw topp ko mu daaw dina topp. da nga conseillé. da nga conseillé. service to not compete. Right, good job. Good waaw moo leen wax sànq rek ànd ak ñoom kilifa do ñu amee demo ñum xar njay ñoo ma conseillé lii nee na mbër boo àndeeg sago koo taxawal yaakaar man loolu ma ko lefee doon wax wallaahi azim ma gëm loolu. ñu gis mu dàq la benn yoon. waaw dàq la ñaar yoon dàq la ñetti yoon. waaw ba nga am trois avertissement ñëpp ki nga xam te mooy Bébé Diouldé. ku ma ragal. amul mbër amul mbër muy tax ngeen ba si làmb ji ma lay ragal. dan may conseillé. damay ànd ñu baax ñu may conseillé moo tax may bëree nii su ma taxoon dëgg tamit da dama lay daan daan mu gaaw dem ñibbi. nga jël tànk bi. mais damaa conseillé moo tax. dana la Brise may ko ñaari yoon nga xool déggoo ko la damaa ñëw taxaw reyante ak moom troisième fois bi. mais dama xaaral. sama gànnaar li ma wax naa ko doxalee ba xam. ñan ñoo eh, yi. ah yan. yoon dana ñëw caa la ñu waxtaan. Ah. waaw loolu laa bëgg. allah rabbi.